lagi aja. Sialah. Allahu Akbar Hidup Bisa manda Kalau ini ke ini ke itu jarak limit nere Sialah. Tyson Tyson Dak dak aeropor Dak aeropor aeropor jalan li. Jalan jal jalan jalan jalan. lay lagi yàlla néegu yàlla nii Tyson Había un lugar. Media. Me tiene de. Allah Akbar. Dah, dah, kamu kamu nak dah kami ke? moo pax mi ngi koy def xam na affaire day am équilibre pour mën a wàccee benn côté xool yang ngi gis kau sore pur pur banyak kayak di daanu si kau yang gis kudu gini kudu gini ni mu lokal no gay abu Allah. Sey yàlla sey yàlla wala xala sooral bi ñuy daaneel nii rek ndeysaan ndeysaan yëpp day daan jëlal jëlal jëlal kër yi yëpp yëpp ay kër yi daa daan yëpp yëpp ay kër yu wàcceel xoolal jaam yàlla yi toog nii geen yëpp dañoo war a wàcc jeunes yi ñoom moom allah sa yàlla buux bi xoloma daar wuy sama nday wooy yaay wooy allahu akbar yow ki ci giir oto bi la fan yàlla la boo ko xamee fan yàlla la de laa ilaha